mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi nekk tey ci suñu fanweereelu bunt ak ñaar ci la nga xam ne mooy suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd al xayrawaani chapitre 32 bi di wax fi nikah wa talaq wa rajaa ñu jëloon ci dimanche passé benn bind wala yëgsi tey ci li muy wax ne wa ma fasada min annikaahi li sadaaqihi fusiqa qabla albina bu dee yaa ngi nekk ci sabru daani bi yaa ngi ci 444 ñu xool rek ci ligne yooyu nga xam ne mooy nekk ci début bi da nga gis foofu bu dee mool bi nga xam ne bu xonq bi la yaa ngi ci page 68 nga xool ca ñaari ligne ya mujj ca page 68 am na nag yeneen mool encore ah cent cent soixante seize am na yeneen mool français yaa ngi ci cent soixante seize wa ma fasada min annikaahi li sadaaqihi fusiqa qabla al bina mi ngi noonu waaw kon mbokk ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ci suñu yeneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bunt bii ñu toll bokk na bunt yi gën a mag ci buntu fiq bal buñ dajale woon li ñuy tuddi fiq ñu defoon ko ñetti volume daanaka benn volume ba yépp ci wàllu bunt bi rek lay wax mooy lu aju ci sëy ak nu ñu yore soxnaak nu ñuy faseek nu ñuy iddawoo lépp ci loolu lay wër ndax loolu nim lënkaloo ak dundu doomu aadama ba nga xamee ni bokk ne teraanga doomu aadama nga yëg ne ci ab sëy nga juddoo loolu ci teraanga am la bokk loolee kon jullit yépp ñoo war a itteewoo loolu su ko defee bu dee yow mi yor téere bi day wax ne wa ma fasada min annikaahi li sadaaqihi loo xam ne daa yàqu ca sëy ngir can ngaa ko yàq fusiqa qabla al bina des na ko teqale avant ñuy ànd cib lal fa in daxala biha mada fa in daxala bi biha mudiya wa kaana fiihi sadaaqul mis su dee ne nag xamuñu ko ba waa ji ànd ak soxna ca lal ba dañuy wéyal sëy bi waaye du tee dana joxe can gu toll ne lañuy may ay moroomam wa ma fasada min annikah li aqdihi loo xam ne nag daa yàqu ci sëy ngir pas-pas ba moo baaxul wa fusiqa ba'da al bina ñu daal di koy firi gannaaw ba ba ñu àndee ci lal fa fiihi l musamma du tee waaja dana joxe lam tuddoon ci can wa taqa'u bihi l xurma te it dana sax ci loolu ak araamante gay am digganteem ak jegeñaale soxna sa kama taqa'u fi nikaahi saxiix comme ni muy amee ci sëy bu wér walakin laa taxillu bihi almutallaqatu salaasan du daganal ka nga xam ne dafa fase woon jabaram ñetti yoon sëy bu yàq boobu du ko ko daganal wala yuxassan naka noonu it wala yuxassinu bihi zawjayni ay zawjaan ca it ña nga xam ne ñooy ñaar ña ko siq du tax ñu ne léegi yegg nañ ci sangewu ba nga xam ne buñ jaaloo te dañ leen di rey ñu ngi noonu mbokk gis nañu bi ñuy mujjee jël bind jàngoon nañ ne sëy daañ ko takk ba pare fekk baaxul lan moo koy waral mooy can gañ ca joxe islam nanguwul can googee ñu ca proposé can ga xaraam na wala can ga ay wor la wala waa ji lam joxe muumu ko ak yu deme noonu ñu ne su boobaa dañuy xool su dee ne moom ànd guñu ci kaw lal dañ naan waa ji hey demal sëy boobu ñu takkoon dañ koy dindi ndax la takkoon ñu basé ko ci ci can can nga baaxul kon dindi nañu sëy bi léegi util can wala nga proposé can gu ñu nangu ñu doog la maire soxna si fekk musuñoo ànd ci lal amaa nag bu dee bi ñuy xam mbir mi fekk ne ànd nañ ci lal ba pare su boobaa luñ koy wax dañ koy forcer mu indi can gu toll ne gañuy may ay moroomam doonte ne ndakaaru xaw na fi jafe léegi waaye soo demoon ci àll bi da ngay gis bi àll bi commencé guloroy ndakaaru dëkk bu nekk dafa am can guñ fay mayee mi nga noonu famille yi it am loo xam ne dañ naan seeni doom lii lañ leen di cane comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko amee woon kon fokk mu joxe can gu toll ne ga ñuy may ay sëram loolu mooy wàllu sëy boo xam ne la tax mu yàqu mooy can gaa am wor mu des nag beneen sëy sëy bi moom dañ koo takk ba pare ndeketee pas-pas bi ci boppam moo baaxul can gi sax mën na baax la mat na sëkk mais pas-pas bi baaxul imma ki ka maye di wëlu yu ndaw si ki ka may du wëlu yu ndaw si benn waaye rek moo ñëw fële maye doomi jàmbur loolu moo ko sëy boobu baaxul wala ñu ne imma moom kat ndaw si biñ koy may iddaam jeexagul masalan idda ba jeexagul ba pare ñu daal di koy may wala boog ñu may ko pare doogu yëg ne kii kat sëy daa xaram seen diggante sëy daa xaram seen diggante te loolu mooy bunt bi ñu nar a jàng léegi insha allah su boobaa lu ñuy def moo mu ne bu boobaa su dee ne moom teqalee àndaguñu ci lal dañuy tas sëy boobu mu jeex jeex na mais bu dee biñ koy yëg fekk na ñoom ñaar ànd nañ ci lal ba pare doo tey dañuy teqale sëy bi waaye waa ji can ngam proposé woon dana ko joxe mi ngi noonu dana ko joxe su proposé wul woon can dana joxe lu toll ne la ñuy may ay moroomam gannaaw ba ñu teqale leen mu ne nag sëy boobu nga xam ne sëy bu bon la dañuy gis ne dana araamal la nga xam ne moom la sëy bu baax di araamal ay ki nga xam ne dafa takk soxna ca takk ko ci biir iddaam masalan wala kakaka may di wali yoom masalan wala liñ ci waxoon maadaama takk na ko ba ànd ak moom su boobaa dañ naan yaayi soxna si aram na la doomi soxna si aram na la tantam aramal na lépp loo xam ne sëy bu dagan da koy aramal ànd googu nga ànd ak moom da koy aramal mu ne doonte ne nag waajee fase woon soxnaam ñetti fase di xaar góor gu ko takk ngir mu daganaat ci moom bu dee sëy bu mel noonu la soxna su dugg du tax mu dagan mu koy jëlaat di ko takk kon dana araamal ci moom la sëy bu baax di araamal ca ay jegeñaaleem waaye du ko daganalal la nga xamee ne nii moom mooy ah ka fase woon ñetti yoon ñaareel bi it ñoom bu doon ay célibataire lañu ñoom ñaar ñépp ñu ànd ci sëy bu mel noonu sëy bu mel noonu du tax ñu ne sanga woñu te xam ngeen islaam dafay teqale ki nga xam ne am na soxna ba ànd ak moom ak ki musul am soxna ki musul am soxna bu njaaloo dañ koy dóor téeméeri yar génne ko dëkk bi pendant un an mais ki am soxna ànd ak moom même bu doon benn guddee mu wëlbati ko njaaloo dañ koy rey soxna si am jëkkër ànd ak moom walbati ko njaaloo dañ koy rey mais bu dee ci sëy bu bon boobu la amee su boobaa dañ leen di considérer ba tey ay célibataire loolu moo aju ci wàllu googee jàpp naa ne su dee am na ñum leerul seen bopp ci li may expliqué ñu wax ñu gën leen koo leeral su leeree ñu jàll ci bind bi ci topp incha allah wax am na ku ci posé question ci loolu non dafa mel ni kon comprendre nañ ah non ñu jël kon beneen bind mu ne kon wa harrama allahu subhanahu min annisaai sabaa yàlla tudd nañu ak sellam araamal na ci jigéen ñi juróom ñaar bil qarabati ci ak jege ñoo ci mbokk wa sabaan ak yeneen juróom ñaar bil radai wa sëhri ci ak nampal ak ko ngorowoo ay mooy sëy dox seen diggante ci seen famille fa qaala azza wa jal suñu boroom wax moom muy tedd ca màgg xurrimat alaykum ummahatukum araamal nañ ci yéen seeni yaay wa banaatukum ak seeni doom wa axawaatukum ak seeni sœur wa ammaatukum ak seeni bàjjen wa xaalaatukum ak seeni yimpaañ wala seeni tànta ngir li gën a dakaaru xam wa banaatul ax ak la nga xamee ne ni moom mooy doom bu jigéen bu sa frère jur wa banaatul uxt ak doom bu jigéen bu sa sœur jur loolu mooy kon juróom-ñaar yooyu fa haula juróom-ñaar yooyu min al qaraba aram nañ ngir jegeñoo loolu mooy kon lu jëkk li mbokk kon bu ñu xoolee lislaam bu ñu delloo ci alxuraan am na fukki jigéen ak ñeent ñu lislaam araamal góor takk leen loolu nag bu ñu delloo ci sunna sunna dana ci dolli ñaar muy fukk ak juróom benn loolu itamit bokk jubluwaayu sëy mooy nit ñi mën a booloo tey jii da ngay gis kii njaay la sant dem ca njóobee nit ñi may ko fa soxna ay doom sosoo ci doom yooyu waa kër njaay seen maam lañ waa kër njóob seen maam lañ su ko defee ak mbokk am foofu mu dem ca kër sekk takk fa dem kër géey takk fa waa kër mbeng may waa kër sow ila axiri loolu day boole nit ñi loolu tax suñu borom subhanahu wa taala ci xikmaam jigéen ñi sës ci yow mu araamal nga sëy ak ñoom fokk nga dem ci ñi gën a sori tuuti te it bokk na lu médecine yit di saxal ay sëy luñ gën a soree loolee di gën a baax rawatina ci xale bi ci wàllu surtout wàllu santeem ak wàllu xelam ak ci yu bëree bëri rawatina bu dee jege ñi yu ëpp yi su feebar amee ci famille bi ñoom ñi ñoom ñëpp mu dal leen ba pare ñu sëy encore mën na indi ay jafe-jafe donte ne it bokk na lu baax ay jege ñaala sëy loolee da ngay gis ne yonent bi def na ko ak ñeneen ñu dul ñoom suñu borom yàlla araamal juróom-ñaar yoo xam ne ba ñu juddoo lañ la xaraam ba nga juddoo lañ la xaraam ba faw juróom-ñaar yi ki ci jëkk mooy sa yaay islaam nag bu ne yaay maam ca la bokk yaayu maam ba aadama alayhi salaam kon sa yaay ak ñoom jur ñëpp aram nañ ci yow ci nga ànd ak ñoom ci sëy ñaareelu catégorie jigéen bii la araam mooy say doom yu jigéen say doom yi jigéen aram nañu nga takk leen say sët aram nañu nga takk leen ba ila yawmi din ñetteeli catégorie bi mooy sa sœur kii nga xam ne benn baay ngeen bokk wala ngeen bokk benn ndey wala ngeen bokk ndey ak baay waxi noppi kooku sa sœur la aram na ngeen sëy ba ila yawmi din keneen kii nga xam ne moo ko ñeenteel mooy bàjjan bajjen mooy koo xam ne moog sa papa ñoo bokk baay wala ñu bokk ndey wala ñu bokk ndey ak baay far gannaaw ba say tànta te mooy ki nga xam ne moog sa yaay ñoo bokk ndey wala baay wala ñu bokk ndey ak baay ñii da ngay gis aram na nga ànd ak ñoom suñu borom it dolli ci ne la nga xam ne mooy sa doomu frère kii yéen a bokk ndey muy góor wala ngeen bokk bàyyi bu ngeen bokkee ndey ak bàyyi nag waxi noppi mboolem ay doomam yu jigéen araam nañ ci yow ba ila yawmi diin naka noonu it say jarbaat ca mooy sa sœur bi nga bokkal ndey wala bàyyi mu am ay doom doom yooyu araam nañ ci yow ba ila yawmi diin doonte ne nag loolu lënt na ci Sénégal yu bëri ndax li ñu ko waral mooy ñu bëri dañuy wax seen jëkkër nijaay ñu jàpp kon nijaay mën naa si yéeg jarbaat déedéet mbokk jurit li ngi noonu benn waaye ñëw na laaj ma ko ci lu sérieux loo xam ne doomu sëram la doon bëgganteel li ngi noonu loolu dafa xaraam maadaama yaak yaayam yéen bokk ndey wala ngeen bokk baay ku mel noonu doomam xaraam na la ba faw mu safaanoo ak ñaar ñi ñuy jëkk a jàng muy avant ñi muy bàjjen ak tant doomu bàjjen kooku moom jabaru lenk la jabar bu baax a ngoog doomu tant sa jabar bu baax a ngoog waaye doomu frère ak doomu sœur xaraam na mutlaqan kon juróom-ñaar ñi ñooy ñi nga xam ne dañoo araam ngir ak mbokkoo ba nga juddoo lañ la araam ci dara du tax ñu dagan la ba ilaa yawmi diin mu des yeneen juróom-ñaar yoo xam ne moom circonstance moo tax ñu aram ci yow loolu la ci jiitu yow mu yor sa téere mu ni fa haulaai kon min alqaraba wallawaati min alradaa wa sihr ñi nga xam ne nag dañoo aram ci yow ci radaa wa sihr ak ci ak ngorowoo qawluhu taala mooy la yàlla di wax wa ummahatukum allati arda'nakum ak seen yaay ya nga xam ne ñoo leen nampal wa axawatukum min ardaa ak seen sœur ya nga xam ne da ngeen a bokk nampandoo wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum ak seen yaayu soxna yi wa rabaibukum ak seen doomi soxna allaati fi xujurikum ya nga xam ne dañoo nekk ci seen kër yi min nisaaikum allaati daxaltum bihin ci seen soxna yi nga xam ne dugg ngeen ci ñoom ay ànd ngeen ak ñoom cib lal fa in lam takunu daxaltum bihin bu dee musu leen a ànd ak soxna yi ci lal fala junaha alaykum amu leen benn ngant ci takk seen doomu soxna soosee ñu leen may ba pare wa xalaa'ilu abnaa'ikum ak la nga xam ni seeni doom ñoo ko takk mu dagal leen ñuy ay soxna allazina min aslaabikum yooyu nga xam ni ci seen ndigg lañ jóge mooy doom boo xam ne yaa ko jur mu takk soxna soxna soosu aram na ci yow ba ila yawmi diin wa an tajma'u bayna al uxtayn araam na ngeen boole ñaari sœur ci benn sëy illa ma qad salaf xanaa lu dul amoon na avant aaya yi di wàcc wa qaala taala suñu borom it wax na ba tey wala tankixu ma nakaxa abaaukum min annisa bu leen takk mukk loo xam ne seen bàyyi mosoon na koo takk ci jigéen ña kon mbokk ñooñu muy juróom ñaar ñi nga xam ne circonstance moo tax ñu aram la mbokk kon juróom ñaar yooyu mooy ñan mooy jigéen bi nga xam ne daf la nàmpal jigéen bu dee daf la nàmpal ku mel noonu dañ lay considérer doomam nga wax naa la sànq ni sa doomu bàjjen dagan na nga séy ak moom sa doomu tànt dagan na nga séy ak moom waaye bu dee sa bàjjen dala nampal wala sa tànt nampal la wala pël baag jawga baag saraxule ku la mën a nampal ci kaw suuf dañuy considérer yaag doom bi mu jur ñoo yem lépp lu araam ci doom bu mu jur araam na ci yow te xam ngeen ne doom bi bi mu jur yeneen doom araam nañ ci moom yeneen tantam araam nañ ci moom ila xiri ila xiri te mooy dañ lay considérer cent pour cent comme doom bu mu jur mooy ndax dala nàmpal ñaareelu catégorie bi ci juróom-ñaari mooy axawaatukum min rodaa mooy koo xam ne da ngeen a nampandoo koo xam ni da ngeen a nàmpandoo ci benn jigéen benn soxnaa ngi ni nàmpal na la vingt ans ci gannaaw la la nàmpaloon mu am beneen xale bu mu nàmpal namp xale boobu maadaam yéen a bokk benn ween bu ngeen namp aram na nga takk ko abadan mi ngi noonu dana bokk ci loolu itamit bu dee soxna si bi mu lay nampal ka nga xam ne mooy góor gëm doon siyal jamono joojee nekkul sa bàyyi xanaa beneen góor la lay sëyal mu nekk di see góor googu pare di la nampal mboole mi doomu góor googu it aram nañ ci yow ni ñuy considéré soxna si sa yaay la noonu la ñuy considéré borom këram sa sa baay la seen diggante aram na looloo tax ñaari frère ngi nii kii dagan mu takk doomu baayu jiitleem ba pare mu aram ci ki ci des kii bi yaayam di ñëw di sëyeeg góor gi fekk fer na kon kooku mboole mi doomu jëkkëru yaayam mën na leen a takk ndax ba bu fekk fer na mais kim fekkoon muy nampal ba pare di sëyeeg góor gi mboole mi doomi góor gi ay sëram lañu ñooñu day xaram ci ñoom loolu mooy axawaatukum min ardaa beneen bi mooy li suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax ne ummahaatu nisaikum mooy seen yaayu soxna benn soxnaa ngi nii dañ ko dañ dañ la koo may fi ñu takk sëy bi rek yaayam aram na la ci saasi maadaama takk nañu sëy bi rek yaay ji moom aram na la ci saasi mu des contraire bi contraire bi mooy yaay ji dañ la koo may ñu ni may la yaay ji biñ la mayee yaay ji heure boo àndeeg yaay ji ci lal doomam yu jigéen yi arab nañ la ba ila yawmi din amma nag bu dee dañ laa may yaay ji nga gis ko muy faccam nga gis doomam bu jigéen gënal la bu la neexee fase faccam dem takki doom bu jigéen bi loolu lislaam may na la ko maadaama àndagu leen ci lal bu la neexee fase yaay takk doom bu jigéen amma bu dee doom bu jigéen lan la may moom fiñ la ko maye yaay arab na la mutlaqan yaay it bis boo ànd ak moom ci lal aram na la doomam bu jigéen mutlaqan mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala daal di ciy teg ba tey la nga xamee ni nii moom mooy sa doomu bopp ndax xam ngeen doom sa doomu frère sa doom la looloo tax yaa ngi jàng ci alquran yonente la yanquba bi muy wax doomam yi lu ngeen di jaamu sama gannaaw dañ ne ko duñu jaamu lu dul ilahaka wa ilaha abaika ibrahim ismail ishaq te ismail magu ishaq la kon ismail juru leen waaye maadaama frère seen baay la seen baay la moo tax fii suñu boroom bu waxoon rek abnaikum rek loolee kon dañ naan dagan na nga takk sa jabaroo magu baay wala rakku baay waaye suñu boroom mu ne min aslaabikum ya nga xam ni yéene leen jur ñu jóge ci seen ndigg loolu mooy kon li xaraam maadaama sa doom takk na soxna soxna boobi bu ko doom fase it araam na nga takk ko ba ila yawmi din beneen bi mooy ñaari sœur ñii ñoo bokk benn ndey wala ñoo bokk benn baay wala ñoo bokk ndey ak baay nga boole leen ci benn buum loolu it suñu borom mu ne araam na bu dee da nga takk kii nag ba iddaam jeex wala nga nga fase ko ba iddaam jeex wala nga takk kii mu faatu su boobaa man ngaa dem jël ka ca des amma boole leen ci benn sëy suñu borom mu ne loolu araam na xanaa lu dul la nga xam ne jiitu na la ko juróom-ñaareel mooy koo xam ne sa bàyyi mës na koo takk na doon ànd naag moom ci lal wala ànd ak moom ci lal wala tunkihu ma nakaha abaukum min an-nisa maadaama mas nañ koo may sa bàyyi rek c'est fini araam na ci yow kon mbokk quatorze yaa ngi noonu yi nga xam ne alxuraan moo ko wax juróom-ñaar yi araam ngiree ak mbokkoo say yaay say doom say sœur say bajjen say tanta sa doomu frère sa doomu sœur juróom-ñaar yooyu moom mi ngi noonu mbokk tax juróom ñaar yi ci tege soxna bi la nàmpal ay doomam ay doomam ak kum kum nàmpal mi ngi noonu sa soxna soxna biñ la may yaayam sa doomu soxna mi ngi noonu bu dee ànd nga ak moom ci lal gannaaw ba itamit sa doomu doom boo xam ne dafa jóge ci yow nga daal di koy wëlbatiku di ko takkaat fekk moom takkoon na ko la ca mujjoon la juróom benneel ba mooy boole ñaari sœur la ko juróom ñaareel mooy takk koo xam ne sa baay mas na koo takk lii mooy fukk ak ñeent yi rot ci alquran bu ñu demee ci sunna yow mi yor téere bi mu ne wa harrama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi radaa yonent bi araamal na ci nampal maa yaxrumu bi min a nasab ca la nga xam ne day araam ci ak mbokkoo wa naha an tunkaha al mar'atu ala ammatiha araam na it ñuy takk jigéen di ka boole ak bajjanam aw xaalatiha wala di ka boole ak tantaam fa man nakaha fa man nakaha imra'atan képp koo xam ne takk na soxna xarumat araam na bil aqd ca pas-pas ba duuna an tumassa ca fekk sax laalugu ko ala abna ala abaihi araam na ci ay baayam wa abnaihi araam na ci ay doomam wa xarumat alayhi ummahatuha dana araam ci moom it yaayi soxna sa wala taxrumu alayhi banatuha du araam ci moom ak doomi soxna sam takk xatta yadxula bil umm xanaa lu dul daa dugg ca soxna sa muy yaay ja ci ànd ak moom ci lal aw bi talazuz wala boog mu banneexu ci moom talazu talazuza biha mu banneexu ca soxna soosi bi ni ka aw yatalazazu wala boog mu daal di banneexu yatalazza mu daal di banneexu biha ca soxna sa bi nikaahin ca sëy bu mu sëy aw milki yamin wala boog moom gum ko moom mu nekk ab jaamam aw bi shubha wala boog ci lënt goo xam ne dafa amoon ci sëyu erreur min nikahin aw milk ci lënt goo xam ne ci sëy la aju wala ci moomeel wala yaxrumu bi zina xalaal doonte ne ak njaaloo nag du araamal la nga xam ne daganoon na mi ngi noonu mbokk kon fii day wax rek ni rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na liy araam ci ak nàmpal mooy lay araam ci ak mbokkoo loolu tënkaloon nañ la ko jigéen bu xesee ba nàmpal ab xale dafa mel ni mu jur xale bi jeex na lépp lu araam ci ay doomim doomam day araam ci xale boobu loolu mi ngi noonu mu ne it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na nit ki di boole ci sëy benn soxna ak koo xam ne tante la ci soxna si wala bàjjen la ci soxna si ay sa soxna si nga takki jigéen boo xam ne moog bàyyi soxna si bokk nañ ndey wala baay wala moog yaayi soxna si bokk nañ ndey wala baay lii lépp dafay xaram ci lislaam donte ne texte boobu ñëwul ci alquran donte ne loolu ñëwul ci alquran waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko araamal ñu ngi noonu loolu kon la la jox détail boo xam ne détail woon nañ ko ci bi ñuy jàng ci gannaaw ca moo di ne ne képp koo xam ne dafa takk soxna aram na ci moom la nga xam ne nii mooy ay yaayam ba faw boo tekkee yaay aram na ci moom ay doomam su dee ànd ak moom ci laal ku sa baay ma sa takk aram na ci yow ku sa doom ma sa takk aram na ci yow loolu tamit da ngay gis ne bokk na ci la koy araamal ñooy ñu ànd ci sëy am na lu borom xam-xam yi considéré ànd ci sëy mooy wéet ngeen ba waa ji bànneexu ci soxna si la doon loolee ay lu mu mën a def ci ay la ñuy faweeg jigéen loolee am na ñoo xam ne dañu koy considéré ni moo ko ànd ak moom ci lan ñoo yem loolu nag nañ koy waxe ci soxna yi noonu lañ koy waxe ci ka nga xam ni jamono bi nit ñi takk ay ay jaam wala di moom seeni jaam di jëfandikoo seeni jaam bàyyi bu xesee ba jëfandikoo ci jaam du dagan doom di ci jëfandikoo doom bu dee moo jël jaam di ko jëfandikoo du dagan bàyyi di ci jëfandikoo ila axiri loolu mbokk moo aju ci wàllu googee nga xam ni dafa aju ci wàllu sëyante ci ak mbokk incha allah wala ñuy sori it ndax mbokk yi
beneen bi namp bi namp bi nag maanaam day namp ba suuf mu araam wala day
koo xam ni dafa takk jarbaatam gannaaw ba ñu xamal ko ne sëy bi dafa xaraam loolu lañ jëkk a jàng te mooy sëy boobu dañ koy tas sëy boobu dañ koy tas parce naa dégg nag benn waay boo xam ni dañ ko boolee ko sëriñam ndax day sëy ak jarbaatam sëriñ bi woo ko ne ko ah diw dama dégg yow ki ngay seel sa jarbaat la mu ne ko waaw mu ne ko ah kooku da nga koy bàyyi mu ne ko ah sëriñ bi dëgg dëgg kooku mënu ma ko bàyyi de mu ne ko boo ko bàyyiwul de kon nga bàmm mu ne ko ah xanaa ma bàyyi la de waaye kooku daal mënu ma ko bàyyi yaa ngi dégg waaye mbokk loolu mi ngi noonu ci ay nattu la nit ki man ngeen bañ a xamante yàlla dogal si seen biir nekk tey si xaram na seen diggante loolu muy mbir bi ñaareel bi wàllu namp bi namp bi bokk na la ëpp lu ci borom xam-xam yi di wax du benn muuc bu mu muuc wala ñaari muuc yu mu muuc mi ngi noonu mastatan wa mastatan waaye mooy xale bi soxna si jël na ko nàmpal ko ba mu suur ci diiru fekk xale bi feragul ay ci diiru ñaari at yi bu dee jamono bi muy nàmp jël na ko nàmpal ko ba mu suur loolee la ñuy wax ak nàmp am na ñu koy firee xamsu radaat ca mooy xale bi jël ne ween bi gis nañ ko muu ci na wan muu ci wan muu ci wan ba muy juróomi nam juróom su boobaa ñu ne loolu moo koy xaraamal mais bu dee ne soxna si dafa jëloon rek jox ko ween bi benn mag na ko xeebul def loolu am na ñu bëri ñuy nàmpal seen doomi sër xamuñu ci dara te xamal ne boo ko xisee ba nàmpal sa benn doom dootu ko mën a takkati masalan doomi góor góor doomi góor yi nga yor kenn dootu ko ci mën a takkati su ne nag ki jëlaat gis ko joxe bi rek mu ne xeebul def loolu fekk jot na ko muccee benn yoon ñaari yoon loolu du tax mu xaraam loolu la ñuy wax ca wàllu googee amma loolu it ñu ciy bàyyi xel gis na benn mbokk boo xam ne bu ma xam bu baax la ndeysaan moom benn xale bu jigéen ñu bëggante lool ba dara desul lu dul takk sëy bi yaayam ñëw na ko ah kooku mën doon sëy ak moom ndax kooku mën dama ko doon nàmpal gis ngeen loolu dama ko doon nàmpal te loolu amoon na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn sëy bu ñu doon bëgg a takk benn soxna caam jóge fële ne ah ñii ngeen di takk ñii ñëpp nampal naa leen gaa yi ne ah waaw yéen léegi lu ñuy def nag mu ne comme wax na ko lu ñuy def fanaan ba tas seen diggante yaa ngi dégg demoon nañ nag ba jamono xaw a yàqu ba ci jamono Omar ibnul Xattaab daaw ñu nangu sëyde benn jigéen jigéen bu jóge fële rek ne nampal naa duñ ko nangu fokk ñu am preuve imma mbooloom jigéen wala ay góor sëyde ko waaye bu doon jamono bu jukko yàqoogul benn jigéen rek bu taxee ne ñi nàmpal naa leen seen diggante day xaraam mi ngi noonu wallahu aalam suñ cheikh mu ne waaw daanaka mooy li mu doon laaj ci xale bi nga xam ne moom wér na ni moom faaw xale bi toll ci état di nàmp bu xasee ak baati ñaari at dootu dootu di nàmp mais yaay di ko nàmpal nag moom fekk soxna si ko nàmpal moom bu fekkee ne faati ne am doom sax te mag ñi daan def da ngay dem ci jëm ba saako amatul doom mais bu amee tëtëb ñu demee noonu am na yoo xam ne koy def yaay bi nàmpee yaay bi nàmp yenn bi rek
lay aramal mooy soow moom muy nàmp su dee ne ween ba rek la sex ca soow génn ca duñu wax daf koo nàmpal mais lay aramal mooy soxna si meew génn na ci moom mu nàmpal kii na doon toll ni ci am doomam ñàkk toll ci am doom su dee ne nàmpal na ko ba mu génne soow su boobaa da ngay gis ne da koy nàmp da dañuy considérer yaayam la gis nañu koo xam ne nii ku ma xam la bu baax yaay ji dafa teelu gaañu rakku yaay ji moo ko moo ko yoroon jànq la musul am jëkkër di ko jox weenam di ko jox weenam ba sow génn ci mu koy nàmp loole kon dañuy gis ni day day tax mu doon koo xam ne nii dañ naan nàmpal na ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaleykum salaam
ndax day concerné bàyyi bi jur kese wala mboolem ku bokk ak bàyyi bi bàyyi lay jàppale
waaw wax nañ sànq ne mooy bàyyi bi mu jur bàyyi bi mu jur kese lañ ko concerné doonte ne ni mbokk islam lii la wax ñii ñoo ñuy xaraam waaye dafa am lu xel wax te li xel wax it fuqahaa yi dañ ko doon jëfandiku bokk na ci mazhab malik bi am na sëy yoo xam ne araamul waaye nag islam rafetluwul ñu koy def te bokk na ci loolu mbokk sa magu papa bi mu bokkal ndey ak baay sa rakk papa bi mu bokkal ndey ak baay bu la neexee mu fas jabaram nga ñëw takk ko mais loolu boo ko defee ndax doo yàqu mbokk dañ naan ax akay ñu noonu man ngaa dem ci ay aada sa nijaay bàyyi soxna nga takk ko du problème ci ñoom mais am na gox yoo xam ne boo ko defee yàq nga mbokk ba su ko defee dañ naan sëy lu dagan la yàqu mbokk lu xaraam la lépp loo xam ne bu ñu ko defee mbokk gi yàqu islam danaan bu ñuy def loolu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon du lépp lu dagan la ñuy def loolu tamit ñu bàyyi ci xel waaye bu dee cosaanu yaxul islam moom li araam mooy baay bi la jur waaye sa mago baay sa rakko baay loolu lépp araamul yaakaar naa nettali naa leen fii ci tafsir yi benn cas boo xam ne ka ma ko doon nettali ma nga laaxira ci li yéeme mooy bi mu ma koy wax mu ne ma imaam ñi may wax yëpp ñu ngi ñu ngi ci biir suuf tey waaye dinaa la nettali seen gars yi ñuy dëkkaloon benn waay boo xam ne rakko papa ji daa fase soxna mu dem takk soxna si indi këram te xam ngeen loolu mbokk doy na waar xëy na sëy fii sa kër papa wala bu ko ñëw sëy sa kër papa ji ne ko ah man ngay def nawle ah da nga maa yeb waaye da nga xam yàlla miy dogal man nam def na ay sababam mais yàlla miy dogal yàggul dal rek xale bi dee xale bi mujj takk dee góor benn góor gi gi doon préparé di sang góor googu amuloon problème ñëw na day bokk ci sang bi góor gi nee na dafa génn bi mu ñëw duggaatee rek bett ko mi ngi jël tànkam teg ci bopp doom doomu doom bi mooy doomu mag ji daal teg ci bopp bi naan ko waxoon naa la du ma sa moroom yaa ngi dégg xool xoola mu loolu mbokk jurit su ko defee kon ala kulli xaal yooyu mbokk dagan na waaye nag encore une fois mooy ay mbir dana doon lu amul problème ci Saloum am problème Jolof amul problème Sénégal am problème Égypte loolee kon tamit képp koo xam ne nii da ngay borom xel ci gàttal daal mooy lépp luy yàqu mbokk moytu ko wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah non non waxaatal nga ne wëllëreem waaw mu jël soxnaam waaw waaw waaw waaw waaw mu gis surtout xale bu jigéen bi waaw surtout surtout jabar bi papam takk waaw mu bëgg koo takk ah waxuma sëtam mais mën na takk sax doomam yaa ngi dégg mën na takk sax doomam moo di ne ne xëy na ñaaw na ci déggin waaye man de yàlla xam na ne ne dund naa ko dund naa ko ci ñu ma xam lool papa ji di fanaanoo yaay ji doom yi papa ji di fanaanoo doom yi yaay ji loolu moom da ngay gis ne islam moom araamulu ko am na it aada yoo xam ne nii ñaawuluñ ko dara nekkul ci loolu loolu kon dara nekkul ci insha allah naam bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatulah.
papa ji ci nu ñu wëree daal papa ji takk doom joo xamante ne doom ji moom yaay yaay yaay yaay jabar ñu leen takk am na dox ba gars yi gisante mooy ndax ci defal loolu ndax loolu yi continue wala xaram
mu ne papa ji moo takk.
ah papa ji ak doomam waaw.
ak ak benn mère ak doomam papa ji waaw dem takk doomu doomu mère waaw te fekk ndek ne doomu papa doomu baa bi waaw moom nag mère bi ci boppam la takk waaw yooyu de lu ci gën a bëri ay ay ay cax la gën a nuru yooyu moom ay cax la gën a nuru doonte ne loolu lu dagan na ni mu daganee papa séeg yaay ki doom séeg doom lu kii la waaye yooyu ci bëri ay cax la waaye xam nañ ne doomu papa ji dem takki yaay ji papa ji mu dem takki doom ji loolu moom ay cax la gën a nuru naam bismillah waaw waaw waaw bismillah waaw
dafa am sœur bu jigéen léegi sœur bu jigéen bi ko takk laata mu koy takk amoon na ay doom yu jigéen léegi nag ci mariage bi ca la doomu ca la frère sœur bi gisee doomu jëkkëru sœuram waaw ci gis boobu nag dañu fekkal bi nga seen digg ba ñu bëggante ba ñu sëy nga xam ne sëy boobu yàlla loolu dara nekku ci mooy da nga koo may sa sœur ba pare takk doomam loolee da ngay gis ne dara nekku ci mi ngi noonu may nga ko sa sœur léegi nag wëlbati ko moom nga takk doomam loolee dara nekku ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam comme bu la neexoon may ko sa sœur takk sœuram ak noonu mën nga ko may sa sœur takk doomam loolee dara newu ci incha allah non non non ala kulli xaal yooyu ay mbir la yu sensible yoo xamee ne nii la ma la wax rek ci wàllu sharia la ak aada mi ngi noonu problème mu ay jaam yooyu bu doon te ne ne dañ tey gis la nga xam ne mooy jaamu sharia yu ñu nangu ne ñii jaamu sharia lañu daganul gor di ka takk lu dul ci ñaari xaal mooy la suñu borom subhanahu wa taala wax ci alquran man lam yastati minkum an yankiha almuhsanat muminat fa min fatayatikum almuminat mi ngi noonu gannaaw bala yàlla terminé zalika liman xashiya al anati minkum gor leen rek ay tax mu dem di takk jaam muy benn amul kattan takk gor ne moom te ragal na su takkul jaam bi dana njaaloo ci ñaar yi bu ci dàqu amul droit tekki jaam lu waral loolu mooy boo tekkee jaam say doom yëpp ay jaam la ñu doon loolu mooy bi jaamu sharia bi sharia nangu loolu tax may wax bon mu des loolu daalika lu bëri ñi ñuy wax jaam tey ay mbir la yoo xam ne da leen a topp seeni maam waaye ñoo moom seen bopp amul kenn koo xamee ne nii dana la ñëw naan dañ leen di jaayee ka miraasa ka kaza wa kaza loolee mi ngi dépendre su dee ne gox boo xam ne xëy na xam nañu leen te yow boo takkee foofu ñu naan da ngaa takk ab jaam mu nar a indi problème nga dem takk ku ñu la xamulul dara nga demit ci wàllu day am ci wàllu li problème ay kast yi islam xamut loolu bal buñ doon buñ doon attewoon islam ñi gën a tedd mooy ñi ñu tudde kast yi ndax ñoom ñoo yor ay métier giir moom mooy ko amul dara yaa ngi dégg mais kast yi mooy ña nga xam ne nii dañuy am lawbe yeeg tëgg yaa nangam dugg fi génn fi mais tamit y a un problème mooy bu dee gis naa benn cas boo xam ne sama benn waay la daal benn waay lañ dem di ko takk di bëgg a takk doomam mu ne leen man amu problème may nag lenn laa wax bëgguma sama doom bu jigéen ma maye ko mu dem fu ñu koy xeebe waa ji na ko man amu benn problème dëkku maag kenn sama kër laa moom dëkku maag kenn loolee kon ñu xam ne islam reconnaître loolu mais bu dee ne da nga dem bokk ci famille yu compliqué yoo xam ne soo tekkee kii ñëw ñu koy xool bëtu xeet loolee nga bañ nga nga nga nga bañ koo indi ngir aar ndaw si loolu mooy la gën ci moom mais daal ci gàttal islam moom xamut loolu ci wàllu ay kast yoo xam ne nii dañ koy saxal mi ngi noonu loolu la ñu mën a wax ci wàllu googee wallahu aalam naam naam waaleykum salaam waaw naam est-ce que dañu bàyyi Bilal mu nodd parce que dafa mel ne waxtu bii li ci des bëriwul après ñu jéem a seet waaw alhamdulilah xam na lu jiitu ñuy ñëw ci laaju mbokk bi bokk na liñ mujjoon a jàng ca leero luñu ko lim ne wala yaxrumu bi zina xalaal mooy njaaloo du araamal la daganoon mooy nit ñëw na njaaloog benn jigéen ndax dañ naan yaayam araam na ci moom doomam araam na ci moom am déet moom li mu wax fii mooy déedéet njaaloo gañ njaaloo doo tax yaayam xaraam wala doomam xaraam loolu nag ixtilaaf la ci borom xam-xam yi xatta biir mazhab malik ci boppam ñaari riwaaye jëli nañ ko ci Malik ci ñoo xam ne dañ ne dafa dagan ci ñoo xam ne dañ ne dafa xaraam donte ne nii bu ñu xoolee li gën a jege ci ay texte suñu ay Aïcha benn waay ñëw na ci moom na ko waaw koo xam ne daa njaaloo woon ak benn soxna ndax njaaloo googu dana araamal mu takk yaayam wala mu takk doomam su ne Aïcha ne ko déedéet laa yaxramul alxaraam alxalaal la nga xam ne nii mooy alxalaal du du lu xaraam du daganal lu xaraam du araamal la daganoon njaaloo dafa xaraam sëyeeg yaay soxna si dafa dagan lu xaraam ni du ko daganal loolee kon donte ne moom loolu la wax ci dafa sukkandiku ci xadis boobu ñu jële ci Aïcha radiyallahu anha lañ ca mën a wax ixtilaaf la ci borom xam-xam yi ngëree bis boo ci déggee beneen fatawa bu bokkul ak boobu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam bu dee ne dañu dellu si ca laaju mbokk bi mooy sëy boo xam ne dañ koo takkoon na doon ci ak nampal la moo leen boole woon xamuñu ko wala idda ba xamuñu ko woon wala kaza wa kaza ñu mëne sëy bi sëyu lënt la charia gis ne tas nañ ko doom yi ci juddoo nag mbokk doom yi ci juddoo doomi sharia lañu seen doomi bàyyi lañu kenn du leen tudde doomi njaaloo maadaama sëy la buñ takkoon def ko ay seede sëy ba baaxul dañuy jàpp ne lii sëyu subuha la baaxul mais doom yi ci juddoo moom ay doomi sharia lañu kenn du leen tudde doomi njaaloo mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam naam bismillah ay célibataire yoo xam ne dañoo njaaloo ba pare ndax mën nañ leen a may ah kay mën nañ leen a may maadaama ñoom ñaar ay njaalookat lañu waaw lu ci mën a doon rek mooy ñu xam ne bu mu doon loo xam ne nii lu automatique la njaaloo bàkkaar la ci bàkkaar yi suñu borom yàlla boole na ko ci bàkkaar yu muy wax ca mandarga ibadu rahman gannaaw ba nag mu ne lu dul ñi tuub ñu tuub yéwénal ñooñee seeni bàkkaar dama koy soppi lu baax looloo tax ba yow xale bu jigéen bi nga xam ne xale bu góor nax na la ba njaaloog yow njaaloo googe même bu ca doom ca so soso ngalla way xoolal su dee yëg nga ne moom tuub na ak njaaloo dara nekkul nga sëy ak moom maadaama ànd ngeen ba doom soso na ca wala boog moom nga jëkk a xam ci góor mais bu dee yéegoonu tuuboo ak ak njaaloo foofu mu jaar ak yow pare na fa jaar fa keneen ak keneen kooku bu ko def mukk sa jëkkër yow xale bu góor bi nga xam ne it am nga ak benn doom bu jigéen sëy na doon doom am na cam doom amu ci sëy ngeen ci njaaloo gannaaw ba yow ngay tuub ak tuub ngallaawaay boo yéegee ne moom tuubul njaaloo googu bul dem di takk jigéenu njaalookat moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ne azzaani laa yankihu illa zaaniyatan aw mushrika mu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam ndax la nga xam ne moom mooy ak njaaloo iddaam naka lay demee borom xam-xam yi dañ ci am uute la gën a siiw ci mazhab Malik mooy dañ koy jàppal la nga xam ne mooy idda comme ni ñuy jàppale jigéen bu ñuy fase bu doonte ne dafa ëmb fokk mu dem ba wasin idda bi doog a jeex su dee ne wasinul it dañuy gis ne dañ koy xaar mu am ñetti baax ñu doog koo sëy ñu doog koo maye amma nag la ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañ ne maadaama njaaloo la bu soxna si gisee règle boo xam ne règle bu wér la loolee moom la ñu tuddee istibra mooy wóor na ne ëmbul bu amee règle bu wér rek su boobaa da ngay gis ne mënees na koo maye wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam bismillah naam waaleykum salaam loolu mooy atal islam waaw ala kulli xaal planning familial atte bi ci lislaam wax mooy dagan na planning familial dagan na mais nag ni ko tubaab bi tërali loolu lislaam d'accordul mi ngi mel ni rek lan mooy atte lislaam ci fase yéen ñëpp lu ngeen di wax muy fase dagan na dagan na mais bu ñu indilee campagne fase leen seen i soxna fase leen seen i soxna lu ngeen di wax déedéet planning familial it noonu la demee tubaab yi ñoom ñoo gis ne ay Afrique ak tiers monde bombe démographique la ay ñoom juratuñu ñii ñi ngi jur kon nañu fexe fexe leen indi ay moyens pour ñu wàññi seen jur doom yi ñuy def planning familial dañ koy maye demal léegi maternité boo mën a dem dañ koy may suñu doom yi ndax ndax xam ngeen loolu dañ leen koy may boo feebaroon piqûre bi gën a tuuti duñ la ko may ay milliards la ñuy investir ci loolu ay jigéen la ñuy jël di leen former jële di di yóbbu fu nekk pour ñuy conseil jigéen ñu def planning familial ala kulli xaal jigéen bu demee ba gis ne njur mi tegaloo ci kawam mi ngi yàq wér gi yaramam dara nekkul ci mu espace njuram rawatina doom bu ne mu nàmpal ko ñaari at comme ni ko suñu borom yàlla sante suñu demee ba médecin yu wóor xamal ko ne ko yow mii kët sa ëmb risque la su boobaa mën na arrêté ak njuram ba baa risque boobu di teggee ko ci moom kon daal li ñuy wax mooy planning familial lu dagan la waaye daganul ci ñëpp ca it campagne bi ñi ci def it waruñu ko woon a nangu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal naam waaw barkala fi dama doon laaj ñaari góor ñaari góor yu bokk ndey ak baay ak ñaari jigéen yu bokk ndey ak baay ndax bu góor bi mën na jël mag bi rak bu góor bi jël rak
naam ku góor ki mën na jël mag ji ku rakk ji jël rakk ji bal bàyyi ak doom mën nañoo ànd bàyyi jël mag ji doom bi jël rakk ji la xalaas loolu loolu loolu nekk ci ñu ngi noonu waaw kon loolu moom moom mën na nekk ci lislaam insha allah ah ah non non weccee moom lislaam da ko araamal lislaam moom dafa araamal weccee moom la ñuy tuddee chigar jàng nañ ko ci darsu bi passé te mooy weccee bu amul can weccee bu amul can bu amee can dara ne wuti sëñ bi kaay takk sama sœur dama bëgg a takk sa sœur sama sœur ñëwtal ko can sa sœur ñëwtal ko can sëy bi am loolee dara newu ci li lis ah man campagne yi plan bi kay yu bëri ay imam sax ah waaw waaw waaw ñu ne yoo xam ne foo foo ko gisee foo ko gisee ay imam yi si naam naam naam ay millions lañ ciy dugal xaalis bu bëri lañ ciy dugal ci campagne boobu xaalis bu bëree bëri lañ ciy dugal ala kulli xaal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu mbokk islam amul ab xatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne xaw naa tere jigéen di nàmpal ba pare borom këram di ànd ak moom muy alxiila xaw naa wax ne ay yéen di góor ñi bu kenn jege soxnaam fii mu ngi nàmpal waaye gannaaw bu maa ngi xool waa Faris ak waa Ruum ñoom ñi ngi nef seeni doom ci yàqulu leen dara loru leen looloo teema naam ma tere ko loolu luñ ciy déggee mooy bu yonent bi xamoon ndaw sii kët nef da koy lor dana ko tere loolu mi ngi noonu waaye maadaama lor amul pourquoi ñu def campagne ci loolu ca loolu campagne boobu gis nañ ni indi nañ ci ñoom seen i statique yu ñu defar rawatina xale intellectuel yi dañ naan la en général xale bi jàng ba université lu ci bari bari bari bari pour mu passer ay trois doom ak yooyu dana bëri su demee ba xaw a yeewu ba jege ay bag ak yooyu peut-être cinq waa borom BFM bi mooy am nangam nangam ki jàngul nangam nangam te muy niveau intellectuel lu mu gën a kawee ay doomam gën a néew loola lan moo ko waral campagne boo xam ne ni intoxication lañ am nañ jigéen ñu bari rus nañoo toog ci mbooloo ne am naa juróomi doom mi ngi noonu am na góor yoo xam ne rus nañ toog ci mbooloo ne man am naa fukki doom mi ngi noonu loolee campagne la boo xam ne wallahi benn jigéen ay du ma wax benn waaye jigéen nettali nañ ay sages-femmes yoo xam ne heure boo ñëwee di def visite xanaa ki juddiw yaa fi amoon da doom dangam dangam dañ lay kii ba nga xamee ni am na soxna yoo xam ne dañuy jóge dëkk ba dëkk changé sax ah comme fa ñu nekk benn maternité rek moo fa nekk ñu ñëw changé ñëw fi mel ne Dakar ngiree mën a mucc ci xas yi ñu leen di xas loolu lu ko waral mooy parce que tubaab bi moo dëral loolu fekk sage femme boobu di nga xas mën nam yaayam douze doom la am yaa ngi dégg mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu benn jigéen nettali na ma nee na ñetti doom la am ak jëkkëram nga ëmb ñeenteelu doom jëkkër yi ne day rey boppam ne day yàq ëmb bi parce que moom jabar googu kaza wa kaza ma ne ko mais sa jëkkër ji ña moom moom xam nga ko famille bi mu jógee ñaata doom am mu ne ma billaay imam yaayam quinze doom la am yaa ngi dégg kon ñoom dañ leen di tuddee c'est des gens ingrats contre la nature te ñu gëmul yàlla bu dee ne ñi gëm yàlla dañoo ingrat contre yàlla mooy yow bu sa bàyyi dafa ne ndax da nga judd ah mbokk seen imam caat la yàlla yàlla barkeel leen barkeel ñëpp waaye planning amul planning bi ñu def amul kon ñun du ñu judd di ah yaa ngi de bu dee li tubaab bi bëgg kon ñun du ñu judd ala kulli xaal islam moom da lay jàngal ne yàlla moom ay jaamam moo moom ay wërsëgam te boo demee day mës naa dégg ci président Abdou Diouf di wax ne chinois yi dañ naan le dernier né peut-être le plus béni loolu ci moom laa ko dégg mooy caat ba mën na gën a barkel ci famille bi yonent yàlla yanqoob fukki doom ak ñaar la amoon yuusufa mooy onzième doom onzième doom boobu moo suqali famille bi suñu borom ci la jaare kazalika yutimu llahu ni'matahu alayka wa ala ali yanqoob waaw yàlla dana matal xéewalam ci ali yanqoob di ko jaarale ci yow te yuusufa mooy onzième doomam yàlla na yàlla barkeel ñu barkeel suñu njaboot wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain